waa nuyu sous comité électoral bu Kër Massar village di nuyu imam di nuyu délégué di nuyu notable yi fi nekk yëpp di nuyu kilifa diine yi di nuyu ki nga xam ne mooy laa coordonnatrice Ami Ndiaye du coordonnatrice comité bi di nuyu notre frère mata Dramé un grand responsable du ñu suñu comité bi fi nek yépp bu ñu limé dañuy joom tay nak su comité électoral bu Kër massal village dafa am ben ndogu solidarité bu ñu organiser ci touru ki nga xamné moy mooy sunu candidat muy son excellence Amadou Ba waye sous comité bi gannaaw bañ ko organiser. waxtaan si ñu ne kat campagne bi daanaka boo xoolee benn fan moo si des waaye la jeudi la ñuy organiser li nga xam ne moom mooy ndogu bi wax dëgg yàlla ñuy sant population bu Kër Massar village yëpp ba ñuy wuysee en masse lii dalay wan rek ne le président Macky ak candidat am waa Kër Massar village dafa nekk seen xol ndax en 2012 jusqu'à nos jours élection yi fi jaar yëpp tey Kër Massar village centre bi dafa mës a waaye yàlla def na tey dañu ci dajalewaat pour waxtaanaat si li nga xam ne moom moo jëm si programme ki nga xam ne moom mooy sunu candidat Amadou Ba waaye tamit. ñaax li nga xam ne mooy population bi ñu mën a voter waaye ñu mën a teel a voter bu ñu waxee voter nag dafa am lu njëkk mooy ñu dem jëli ji carte d'identité yi te yaakaar naa ne ñoom wax dëgg yàlla dëgg nañu message bi te incha allah suba la carte d'identité yi di yem suba mooy dernier jour kon ñëpp képp ku jëliwul sa carte war nga ko dem jëli ji tey nag dañoo toll si bés boo xam ne mu doon benn journée bu spéciale parce que journée bi Kër Massar village wax dëgg yàlla dañ ko namoon parce que sous comité Kër Massar village képp ku leen xam rek xam leen seen taxawaay seen fulla seen fayda waaye tamit seen bëgg ki nga xam ne moom mooy village bi bëgg Kër masaar bëgg Kër Massar mooy bëgg Amadou Ba ndax Amadou Ba képp ku ko bëgg rek da bëgg li nga xam ne mooy sa réew ndax boo xoolee mooy candidat bi gën ndax Sénégal dafa spécial actuellement lu ne spécial mooy dafa am mbir yu bees yu fi xew lu fi mus sa xew depuis mille vingt et un am fi ay candidat wala boog ay politiciens yu bees yoo xam ne ñëw nañ fi vraiment indi nañ fi loo xam ne vraiment Sénégal mosu koo dund muy ay soppi jikko boo xoolee tey dañoo dem ba dugg ci kër kilifa diine yi yàq jeunesse bi di xas kilifa diine yi di xas ku jóg wax lu baax ci réew mi ñu de la xas di la saaga kooku moom mooy tey candidat bi nii bëgg a teg fii ànd ak waa jooju nga xam ne bëgguma sax tudd turam ñëpp xam nañ ko yàq réew mi te Sénégal dafa am ay qualité Sénégal dafa am ay valeur yu fi nekk mooy sunu kilifa diine yi dañ leen a fonk parce que ñoom ay buntu lañ yoo xam ne dañuy jàppale astan bi ñuy jëm fa yàlla di leen wan ñuy jaamoo sunu borom waaye ñooñu gëmuñu kilifa diine yi ndax seeni projet am na luñ ci dugal te loolu ñun askan bi dañ ci war a xool xoolaat suñu bopp bu baax teg ci tànk mooy nañu fal ki nga xam ne mooy Amadou baax bu ñu bëggee réew mi jàmm parce que mooy jàmmi réew mi waaye ñoom dafa am fu ñu teg suñu tànk fu ñu teg suñu tànk fenn rek la fu ñu teg suñu tànk fenn rek la muy naka la ñuy fexee ba jàppale ki nga xam ne mooy Amadou Ba fii si Kër Massar village centre bi ñu gagné ko ndax centre bi Kër Massar village dafa am trente six quartiers yu ko wër te trente six yooyu yëpp joxante nañu loxo au au soir du vingt quatre mars incha allah dimanche bi di ñëw ñu fal ki nga xam ne moom mooy Amadou Ba waaye teel a xëy nag. ndax ku ci xëdd bul tëdd jógal nga dem fal ki nga xam ne moom mooy Amadou Ba voté leen en masse bu kenn tayal fu waay nekk na la jaral lu nekk pour nga ñëw teel xëy ñëw raa pour mën a jàppale ki nga xam ne moom mooy sunu candidat mooy candidat bi gën baax mooy Amadou Ba fii nag ñoo ngi santaat wax dëgg yàlla chef de village chef de village lépp luñ ba ñuy doon démarré fa lañ ko démarré wax dëgg yàlla ñoo ngi koy sant bu baax ak ki nga xam ne mooy la coordinatrice Ami Ndiaye waaye nañu xam ne spécimen bi spécimen bi moo ngi nii Ami yor spécimen bii moom moo wóor képp kuy voté képp kuy voté boo gisee Amadou Ba neex naa xam ne mooy waa ji nga xam ne dafa am charisme waa ji nga xam ne boo ko xoolee rek nga xam ne kii dafa mat chef d'état boo ko xoolee rek nga xam ne kii dafa am expérience boo ko xoolee rek nga xam ne kii du ko bees ci réew mi nekkul koo xam ne dafa jógee fële rek fàqee si langue gi daal di ñëw dafa doon koo xam ne dafa rampe si état du Sénégal am expérience bi au niveau national et international wax dëgg yàlla xam réew mi bu baax a baax a baax a baax kon na ñëpp jóg dem jàppale ki nga xam ne moom mooy Amadou Ba liggéey yi ngay gis fii Kër Massar pavage yii benn maire indiwu ko fi xam nga dañ ñoo ko fi indi mooy ki nga xam ne le président Macky Sall moo jël Kër Massar yëpp pavé ko waaye gis nga lamp yi ngeen di gis lamp yu bees yi ngeen di gis maire yi indiwu ko fi de loolu le président Macky Sall projet la boo xam ne toutes les délégués de quartier jox na leen ay lamp

Insyaallah. allah asalaamaaleykum waa Kër Massar village asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant di rafetlu bu baax jotaay bi di jéggalu si retard bi ñu accumulé sànq ndaxte teeloon nañ jóg sax ñu ñu ñu bëgg def une pierre deux coups en faisant en même temps une caravane. boo xam ne dina sillonné diggante arrêt 54 ba M3 ñëw ba rond point pharmacie Dial Diop doog a nag jël oto pour ñëw parce que en même aussi ñi fi toog nii ñëpp muy wax sous comité unité 14 ñoom ñu liggéey ci seen zone liggéey bu mucc ay mais fépp fu ñu gis ne war nañ ko mën a ñëw ak benn rapport dañ koy def ci cadre comité électoral moo tax yàggul dara jóge nañ fii. doon seet si suñu présidente Adjata Guissé ci jotaay boobu doon waxtaan ak jigéen ñi tey ñu ñëwaat fi encore ci cadre ndogu bi ngeen organisé kon loolu li muy wane mooy boobu ba léegi kenn toogul ñëpp ñu ngi li may njëkk def mooy félicité wax dëgg yàlla sous comité bu Kër Massar village ndax macha man liggéey ma gis ñoom ñuy def ndax fu mu toll nii mbir nëbboo moo fi amatul. li ma yàgg di wax rek ne lépp di leer fii ñu fi waay def dina feeñ soit xarale yi dinañ ko génnee mooy vidéo yi yi ñuy dugal wala sociaux yi bu dul loolu aussi écho bi dañ koy dégg yëngu-yëngu bu xam mais Kër Massar village dëgg yàlla il sont organisés il y a de grands responsables yu ko composé seen sous-comité en passant par la coordinatrice muy Samy Ndiaye moom ñëpp xam nañ ko ci Kër Massar taxawaayam ak liggéey bi rafet ànd seeg euh, bureau bi yëpp su ma tuddee yow ak mandataire rek di ngeen yóbbu lépp muy en l'occurrence Nabou Sène président moom it ñu koy jox wàccuwaay ñoom ñëpp ñu ay jàmbaar Kër Massar li mu régorgé si ay jàmbaar si politique dafa bari peut-être jusqu'à présent ni ñu waree may chance dëgg ku si nekk mën a am kàttan bu mu taxawee goxam ak koñam ak ay nitam loolu mooy xaw a te je pense que dynamique bi ñu jël léegi Nous, bari bari bari bari dafa président Amadou Ba moo war la ñuy il a d'avance compris déjà compris le message solennel de waa surtout ce dispositif politique buy assurer la continuité ce programme ak activité yi nga xam waa comité bu unité 14 maa ngi leen di nuyu di leen jaar di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ngeen tàcc seen bopp ñii ñenn la tuñu aussi fanaanatuñu daanaka chaque jour une du matin deux heures du matin dañuy julli suñu kër chaque jour ñu ngi si démb rek ñu ngi woon marché unité 14 gis ngeen vidéo yi si on foofu ñun yëpp foo romb nag kàddu gi benn la moo tax gars riir gi day bari rek mais njiit yàlla moo koy tànn.

benn mbir dañu cuuj fii cuuj fële laal fii laal fële ak di ngarale ak di teg ay xel ay stratégie yi dul jeex loo bëri bëri bëri stratégie yàlla la ëpp stratégie loo ëpp am am doole di woo askan bi si lu dëgg bés bu yàlla feeñalee dëgg rek nga nopp te doo si mën dara te looloo xew président Amadou Ba jàpp naa ne ñu bëri saytu wuñ ko woon si niveau bu mu nii te gëm naa ne niveau bu mu toll ni en 2024 président Macky Sall amu ko en 2012 fu mu dem si région yi imaginez vous ko waran def meeting à Casamance à partir de 16 h 15 h 13 h 14 heures egg aéroport bu so nga wara a jógee dox ba fi nga wara dem si meeting ba mu jëlal la presque 6 h de temps ndax mbolo bu lay bloquer ci yoon bi ba mëno ag te waroon jógee foofu ñëw Pikine jógee Pikine war a ñëw Kër Massar te fépp si biir Sénégal fu mu dem nga yaakaar ne fii la ëpp nit ngeen foog ne loolu ñun ñoom yëpp ñan lañ boo doon évaluer en pourcentage parti bi fa waa Benno wala APR nekk ñu néew la ñuy doon par rapport ak cette marche bi nga xam ne ñoom ñoo bëggal seen bopp Amadou Ba yaakaar ko pour mu war a réew mi kon loolu may wane ne mbir mi sotti na ba pare jaratul coow jaratul xeex jaratul dara wax naa ko sànq campagne campagne bi sax jarul ndax la masse silencieuse moo masse bi ëpp doole ci ñi nga xam ne ñooy faire la différence à chaque soir di vote kon nag ñun Kër dañ gën a xamaat suñu bopp saa su nekk lu laay wax Kër Massar lu bari loo xam ne say erreur waratul ci delluwaat surtout en politique ndaw ñi aussi ñu jël seen responsabilité xam ne contexte politique actuel bu réew mi moo laaj taxawaayu ndaw ñi mu bañ a nekk taxawaayu falafala mais mu nekk taxawaay si fëll ak si fayda waaye tamit si xam-xam si yar ak teggin si encadrement ndax lu amul encadrement loo xarañ xarañ xarañ te nekk xare mën na juum day yomb loolu mooy wane ne mënoo xeexante ak ñi fi nekkoon nekk ay responsable lenn lañu mën mooy uuf la encadré la conseillé la taxawaay bi war si xeex si jàmbaarloo yow jënd ya ko wara a def sank bu ñuy ñew dañu ñew ba M3 suñu sunu kuréel gii quatre vingt pour ay jeunes filles mais ñu am fit dañu ñew ba M3 ñoom bilaan egsi bilaan rocc jaxé limay wax yéen yéen caméra la ñi dañu yéen ngeen mu foog dañuy añee jigéen ñi ñoo ñëw soobu convoi bi ñii ñuy toog nii ñëw songu convoi bi M3 Bilal génnee jaase ne dañ ciy jéem a i gars yi taxaw affronté gars yi naan ñu waaxu leen dem ñu ne kenn waaxul ñun on ne cède pas à la pression parce que li ñuy def xam nañ te am nañ fit te wax xam nañ ko tamit bu baax ñun taxaw communiqué ñoom communiqué bu leer naan au soir de du dimanche jaratul yàkkamti trois jours kesam lii ngeen fi dese ay nekk fii di prôner la violence xamoo leen ne askan bi am nañ fu leen kale ba pare soxlawatuñu ñu mel nii ñu war a gérer réew mi déedéet ku am jàmm ku am daan ku am fulla ak ku am xam-xam ku mën communiquer communication ñëpp xam nañ mooy troisième pouvoir daanaka adduna bii boo mënul communiquer doo leen benn nan ngay nekkee président ñëpp di la coow di la coow di la coow diw diw diw nga ñëw sa premier point de presse ngay def ay bêtises rek si communication léegi nga war a nag teg dossier wu réew mi pétrole ñëw am ak xam ne loolu nu mu compliqué gérer nga war si négocier ay tubaab yoo xam ne seen xel ñaw na bii teer ñaw buñ jàppaayoon ñoom boo waxagul sax xam nañ ne façon nit la soo amee personnalité duñ la xool soo nekkee di okkatu di gauche droite di def ay grimace def ay fëb gars yi lay nax très rapidement gérer li ñuy gérer dem seen yoon boo saagoonul sax ñu jël réew mi tayle si ay mbir yoo xam ne ñun ñëpp ngay mujjee sànq moo tax lool la Sénégalais yi xam dafa ñu jënd jàpp leen élection yii élection bu vote utile lay doon vote utile pas vote pour sanctionner Macky Sall am na si yoon ba ñu ñëw ñu ne da ngeen di wax les réalisations du président jarul koy wax réalisation Macky Sall def na ko ba pare jeex na tàkk kenn waratul taxaw di tudd sax réalisation yu bari il faut il faut focus sur président Amadou Ba nous expliquer quel, quel, quel homme il est, homme d'État, homme de personnalité, charismatique et tout, nous expliquer nous bari si moom ni mu may loolu moo solo ñuy depuis 12 ans di wax les réalisations du président il a déjà fait beaucoup de choses loolu Sénégalais nous il ko ñoom ñoo a gindi Sénégalais yi ci choix bi ñu war def au soir du dimanche Nous xam amul meilleur profil bu dul président Amadou Ba ñu may la signé euh, waxtu bi jot na li ñu waroon yeggali bari na mais ñu sant ñëpp di ñaan yàlla suñu borom yal na yàlla mottali lépp barkeel liggéey bi ñu nam bu kawe suñu jot ñu di tënk Kër Massar célébré victoire bi bu ko defee ñu réeré te dëkk tàntataan bi te incha allah rabi loolu dina am may sax ñu di jëm asalaamaaleykum. Euh, asalaamaaleykum mbooloo mi. maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di féliciter sous comité électoral bu Kër Massar village bàyyiwuma kenn vraiment gis nañ seen taxawaay depuis bi campagne yi taxawee gis nañ seen taxawaay gis nañ seen conviction gis nañ seen bëgg euh, président Amadou Ba gis nañ seen bëgg Kër Massar maa ngi leen di féliciter yéen ñëpp i leen encourager tey du ma guddal parce que dama kontaan li ma gën a tax kontaan nag mooy mobilisation bi nga xam ne waa Kër Massar village dañ ko def confiance bi ngeen porté ci sous comité électoral bu Kër Massar village maa ngi félicité Abdou Ndoye moom bu ñu amoon cinq yu ni moom Kër Massar romb la fi ci sa fit ci sa bravoure ci sa courage ci sa dëggu lépp lu muy def ci clarté la koy def yaakaar naa ne ñi doon xëccoo coordination gisuñu kenn suñuy laaj Abdou la ñuy laaj moo ñu jox les bonnes informations moo ñu orienté mooy tax ñu xam li ñuy def vraiment ñu ngi lay félicité di la encouragé di wax na ci kaw ci kanam parce que fii jamono toll dañu wax une gestion inclusive kon kii jaay sa marché ba sax yoonam nekk na ci liy doxal gox jaru xëccoo jaru xiyoo jaru ŋaayo kenn ku nekk xam nañ li nga mën te yow Ndoye xam nañ li nga mën bu ma jógee foofu nag damay félicité euh, sama brave dame yi ma àndal jaal baabu gis nañ sa taxaway ay di signant gis nañ sa taxawaay Seynabou ma sœur gis nañ sa taxawaay xarjata borom direct yi yow gis nañ sa taxaway bo limé da ngay joom da do matal parce que vraiment mënuma sax am le mot à exprimer ma ngi gërëm dañu yaay ko mom sama yaay bop la daf ma bëggal bopam daf may wo ci suuf di ma conseil di ma wax taxawé ni defal ni té lolu ko bëgg rek nga koy defal ma ngi gërëm yaay leen ne toog foofu moom femme bu am dynamique la aussi tout le temps mu ngi ñëw mu ngi dem mu ngi xool ndax baax na lépp loo xam ne dafay doxal suuf comité bi ñu ngi ci des fois nag mu affaire bi jaxasoo lool mais tout le temps dañuy toog ànd ak dal waxtaan te coow du am vraiment li ma gis si sous comité électoral doy na ma te am na loo xam ne liggéey bu tàmbali la jeexagul parce que dafa am fu ñu jëm sama confrère wax na ko léegi li fi jot a jaar gis nañ ko ngelaw loolu bu mu ñu dalaat que soir du 24 mars ñu fal le président Amadou Ba pour mu liggéeyal Sénégal liggéey Kër Massar ba nga xam ne dootu dootuñu yeesuñu benn morom maa ngi félicité euh, Moundiaye Diop gis nañ jàppale bi gis nañ taxawaay maa ngi gërëm ko si ki nga xam ne nag moo xam taal ndax monsieur Gadiaga su ma bàyyi woon may dem wóolu ma jox ma alalam kon bu ma egsi fii saa bu ma geesoo gis ko maa ngi kële rek waaye mu ngi nii ci ginnaaw parce que bu ma geesoo rek dama koy gis vraiment chapeau à mon mari sama xarit sama confident moo may conseil su ma waxee ba pare sa des fois dafay ñëw ne ma nii nga war a waxee nii nga war te loolu góor gu la bëgg rek yërëm la moo la koy def vraiment maa ngi yàlla yokk ko ba yëpp ko bëgg na ma yërëm na man daal maa ngi gërëm waa Kër Massar yëpp maa ngi gërëm aussi Ndeye Binta Ndiaye mi nga xam ne moo nekkoon ci waañ dama koy yuuxu damay gërd damay wax lu nekk mais loolu yëpp c'est pour mu baax vraiment Ndeye Binta yow ak sa équipe merci beaucoup kontaan naa Mata Dramé aussi docteur Félicitations. gis nañ sa taxaway. gis nañ sa taxaway baax maa ngi gërëm aussi maître Amadou Sall bu bés bi taaro ba mu ngi ci sama jëkkër la sama xarit la jappalé nañ may gërëm ko exceptionnel ci man nak parce que ñu parti PDS la nek, Karim Miss la Mako indi mu ñëw mu ma mam yow fo nek fa laa nekk muy Moussa Dia jël alalam jox ñu di ñu accompagner di def porte à porte di sensibiliser nit ñi bu ñu egsee fi moom it loxoom mu ngi vraiment kontaan naa maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm